jërëjëfati Serigne Saliou. sëriñ Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te gën a wér. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te gën a wér. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla fi yàgg lool te a wér. yeesalaat sunu cant bu baax sëriñ bi ci ndimbal lii nu amati ba fekke daje bii nu daje ci sa yërmande di sant sëriñ Saliou mu doon mbir moo xam ni saa yu nu dajee di ko def day yàllaat lool ci nun nu yeesalaat sunu cant ci ki nu ko baax yi ndax sant sëriñ Saliou mooy sant sëriñ Touba sëriñ bi wax na ko te sant sëriñ Touba comme sant yàlla Cheikh Ibrahima Diop almashar yi mi ñëpp xam ci wenu murit da ko wayoon ni ko fa sukkuruhu sant la yow sëriñ Touba sukkurullahi xaalixinaa mooy dëgg-dëgg sant yàlla mi nu sàkk kon sant sëriñ Touba mooy sant sunu boroom sant Serigne Saliou nag mooy dëgg-dëgg sant Serigne Touba kon baax gi nga nu baaxe nu def siwaat ko ci sab teewaay noo ngi la ci santaat waxtaan wi nag tam bi nga xam ni tànn naa ko ngir bëgg ko waxtaané ak mbokk talibé yi muy mbirum serigne Saliou mi mu feeñal ci jamono damay doon mbir mu yass peq mo xamni yassay bi peq ak riyaay bi lool da jur ñetti mbir ci nit ñi da leena def ñetti yu benn bi riyaay bi lool ba mënuñu koo ak lu nu xamoon ak yeesaay bi pek ba mënuñu ko nuróoleeg lenn ñaar yooyu daa jur ci ñoom ak luum mooy ak yéemu goo xam ni da ngay mujj jël sa loxo rek taf ci sa gémmiñ daanaka dootoo ci mën a wax waaye da nga ci am yi tawféex yi xam def de du def lu defuwul ba tax na boo expliquer da nga ciy rafet njort rek waaye nag yéemoo la ci dal goo xam ne dangay ngay far rek teg sa gémmiñ genn kuréel gi noonu lan def geneen kuréel gi rëyaay bi lool ak yeesaay bi peq li mu jur ci ñoom mooy comme amul dara luñ ko mën a peeseel ci lu ñu xam amut dara it luñ ko mën a nuróoy leer te luñ gisoon baa ñu déggoon ko baa ñu xamoon ko daa jur ñàkk àttan bu jur ak weddi weddi googu nag la koy indi mooy amul benn balance buñ ko mën a peesee ci lu nu xamoon mbaa nu déggoon ko amul dara yi luñ ko mën a nuraleel te lu nu gisoon mbaa nu déggoon ko mbaa nu xamoon ko day mujj jur rek ñu ne kon lii daal c'est impossible lu mënta am la loo xam ne luñ sos la rek ci yëf yi ko wërtaam baneen kuréel bi leen ñetteel mbir ma rëyaay ba la muy rëy rëy ak yeesaay ba la muy yees yees tawféex gin ci am mooy bokk ca bokkuwuñ ca sax seen seen doole dañ leen caa boole nu sax ci di ko noosoo ak di ko bëggee waaye sax ci di ko sante loolu nag defe naa mooy nun mooy ñett kuréel yooyu la jur yeesaayug mbir moom yi nag laa bëgg a teg saa baaraam tey ngir waxtaan ci waxtaan wi it di jur ñaar benn bu njëkk bi mooy ak laabire lay doon ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dani ad diinu sunu diine ji laabirante la laabire mooy ñaar ñu njëkk ñi ñoo koy moom ki nga xam ni rëyaay geeg yeesaay bi jural na ko kat mu mujj ci lu ak nga xamne sax riyaay bi ak yeesa gi jural nako sax mu def ko weddi dañuy and ak ñom joxagn leen li tax mu melni ni mbir mi da lunku ci ñom ta fekk mbirum yalla la fan la leen recce nak ba nuruutut ci ñom mbirum yalla fan la bun ak ñom ba ci lolu joxagn leen ko ñu man ko seen sëriñ bi man na ci def ndimbal lu toll ni dal di xamne ndekete yi fi ni demee te yëfi yàlla donte nag ak laabire yàlla da koo digle ngir di ko def waaye nekkul ne it li ngay wax mooy gindi nit déedéet loolu loolu warteef la wooy def waxe ni nga xame waaye yàlla nag mooy gindi ku ko soob ndax seydinaa noohin alayhi salaatu wasalaam yàlla daa wax ci alxuraan ciw làmminam daal ni am na ci nit ñi ñoñ lu ngeen leen laabire laabire seen njub gi ngeen nekke ak lum jub jub jub jub taxut nu man caa gindiku ndax man yàlla miy gindee maa narut ci ñoom ak gindi daan ne man yàlla nag maay seen borom kon maa leen ëpp doole te ci man ngeen di mujj wala yanfahukum nusxiya in aradtu an ansaxa lakum yuridu llahu ay yuxwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turjaun loolu yëfi yàlla waaye li la war rek mooy laabire moom day warteef ci jullit bu nekk digganteem ak moroomum jullitam donte jubal ga ak gindi ga yëfi yàlla waaye noo koy ñaan ci baaxam gi yërmandeem ji jaarale ci kaddu yi def ko mooy làmp bu niit bépp xel waaye def ko mooy leer gu toq ci bépp xol def ko yoon wu gindi ñëpp ci mbiram mi ci ku ko soog loolu mooy benn bi muy jur baneen bi muy jur nag mooy ak fàttali akuk soññeeku ñaax ci ñi am nimbalul tab ci ñoom nu gën a am nimbalul kóolute ci xam ni sunu borom mi rawale daal rawale na leen jàppaloo leen ca la gën te ku jàpp ca la gën la la ca war rek mooy ngoy ca te farlu ca te sax ca ñaar yooyu la waxtaan wi jur kon bi ak ñaar yi mi nga xam ni mooy mooy jublu gi boobu tam nag ma ciy ngeen may ma def ñaari minute yoo xam ne dama koy nuyoo ci cant gi nuy def wax ci ñaari minute li ma ci jubli it ci boobu mooy comme ñaari yee rek ak laabire lay doon ndax lii nuy def day ak jaamu yàlla sëriñ bi junj na ko léegi gu féete kaw nag ci xeeti jaamu yàlla yépp laabire bi mooy léeg leen nga gis koo xam ni day mel ni ku lay soññi naan jaamu ji leen yàlla kon loolu la nga déggee mooy kon mën naa am ñàkk a xam li nuy def tax na mu mel ni jappi wu ko ak jaamu yalla babu ñak xam li ni def taxna mu japp ni manes na def lu ko gëna a rëy donte yàlla moom lu mu indi des ci def lépp kookii nag des na ko labiré ci xamal ko niko ab jaam defut lu gëna a ak cant bu ko doon jimi sax du ko man ndax yalla mi def lu mu fa andi indiwul lu ko tayit bi nga xam ni moom lay jariñ it mooy ki ci nekk it xam ni loolu yi day mu tàbbi tàbbulu ki sax boppam dañ koo dimbali ndax bu fekkoon ni kër kër la kenn mënu cee yóbbu sa bopp moom sax ci cant loolu it ci alquran lañu koy leeral ak addis ndax lislaam lépp loo ci wax day laaj arjuma muy dalil arjuma yi ñaar la ci lislaam soxla mooy xalal kitaabi wa sunna mooy alquran ak sunna mooy addis alquran sunna baa waxi sëriñ tubaa mi nga xam ni moom rek moo xam alquran ak sunna ndax nee na yaquulu lil quranu wal xadiisu maa duunahu tafsiru wa tahdiisu yàllaa ma may alquran yàllaa ma mayaali addis may goo xam ni ak tafsir yëggu ca addis it may na ma ko may goo xam ni firi addis yëggu ca kooku moom waxam moo gën a dëgër yépp kon alquran ak addis mooy ñaar yi nga xam ne looy wax ci lislaam tey wax ak waa lislaam war nga leen ko war nga ko caa wéer boo dem murit di ko wéerit ci waxi Sëriñ Tuubaa ngir leeral ni dara ëpput lii nuy def muy ak cant cant gi Sëriñ Saaliwu moo ko jàngal seen bécc ba mu ne ko xeeti jaamu yàlla yëpp ak cant ci féete kaw da ko laajoon Mbàkke luy ak cant mu leeral ko nag ponk ya ndax dane ko cant bernde bernde it rendi tour tok ñam wu bari ta neex di sédélé do ci am xej ak siin da ngay yow mi koy def ba noppi jubloo bëgglé kon ponk bi moy lan bernde waaye bernde jublu ci lan sant sant yalla bëgg tay bëgglé ci lislaam waxuma sax bernde ngir jublu ci ak cant rëyaay bi waaye bo jëlon ponk joxé ñam rek muy bernde ci alcorane ak hadith suñu borom leeral na ni jaam jëf ngir nga xam ponk yi cant gi boole rek benn bi rek laa lay jël nga xam ni ak cant xamut kenn xamut lan la addis bi abdullahi ibnu Omar moo ko nettali bu alxuraan weesoo addis xam nga daa am ay daxiif ak saxiix addis bu naan wér naa ko wérut waa lislaam gépp nag ñoo daje daan ne ginnaaw alxuraan téere bi gën a wér mooy saxiixul buxaari ak muslim mooy ñaari tiir yi nga xam ni ñoo dajale addis yi nga xam ni segg nañ ko ci wet gu ne ba mbooleem lu lu mën a tegtaloo ak wérug addis daje nañ ca ñu ni ginnaaw alxuraan ñaar yi ñoo ci gën a wér muy Sahihul Bukhari ak Muslim nga xam ne ñoom ñaar amul kenn ku nekk ci islaam ak ci benn ngir bu werante ci benn benn seen benn addis addis bii ma lay bëgg wax nag ñoom ñaar ñëpp daje ci bu dee ci Bukhari moo nekk numéro 12 borom xam-xam yi may diglu danañ ko xam nan dem ci téré ba numéro 12 la fa né bu ci muslim hadith bi mo ci nek numéro 39 ñom danañ ko mëna xam ci ko netali it abdullahi Imnu hamar la koy kan dom la ki sayidna amar bun Qatar. sayyidna amar bi mu abdullahi Imnu amar da daa wëlbati ko bokkaat ci sahaba yi ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci wetu rasulullah sallallahu sallam wasallam doyna rek daraja nga xam abdullahi Imnu amar sëriñ Tuubaa ngi koy way ca tuhfatu mutadarihin naan yàlla maa ngi lay ñaan nga muccal ma ci lépp lu baaxut te it fegal ma lépp lu mën a dijj ak lor ñaar yooyu nag na ma ko defale ci darajey Abdullahi ibnu Omar xam nga ki sëriñ Tuubaa naan may ma nangam ci darajaam kooku rëy na bi xaqi Abdullahi natli humara xanik fi dëhban maa dara darara Abdullahi ibnu moo moomu nag addis bii ma lay wax moo ko nettali kon wér foofu la yem abdoulaye ibn omar nee na anna rajulan saala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na toog nañ ba yàgg benn waay yegg si fekk nunu jotaayu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu dikkee mu laaj ko question bu rëy ñu ne ko ah abdoulaye ibnu omar waa ji lu mu laaj yonent bi mu ne dani ko ayul islaami xayrun booba question benn question mënu ko lislaam jii la yàlla jox nga andi ko ci àddina ana lan moo ci gën Abdoulaye Omar lool la loolu nee na loolu la waaje laaj yonent bi lislaam jii nga nu andil ci ndigalul yàlla jan jëf moo ci gën waa lislaam li ñuy def lépp jan jëf moo ci ëpp doole moo ci féete kaw sa lislaam jii nga nu andil lan nga ci àndaala li ci ëpp doole yonent bi mooy bëgg a tontu ki nga xam ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yàllaa ne lu mu wax maa ko wax te moom it lu mu nu wax it mooy suñ diine yonent bi salaa salaama tontuwu ko na ko bari rakka niiw ko bari ak niiw ko bari naafila niiw ko bari jàng alxuraan salaa alayhi salaama dani ko tuttihimu tahaama wa taqrubu salaama addis foofu lay daan ne ko li gën ci lislaam ji nga xam ne kenn deful lu ko ëpp mooy lele aw ñam bernde ak baril ab nuyoo nuyoo mooy la koy nuyu da nga naan ko asalaamaaleykum yàlla na jàmm nekk ci yow kon loo cay déggee mooy yéene nit ñi jàmm te ci biir cant gi loolu ponk la ci ndax bég tey bégle koo yéenewul jàmm doo ko bégal koy bégal ku ne danga koo yéene jàmm ba nag moo tax nga di ko bégal ma man ngaa gis di bégal koo yéenewul jàmm mënta am di ndax koo yéenewul ndéet doo ko bégal tey bégle yaa ngi dégg Abdallah Ibn Omar nettali addis boobu kon addis boobu loolu wér na joxe aw ñam la ko wax joxe aw ñam nag li muy rëy rëy rëy baa xam nga ni jotut sax joxe aw ñam jublu ci sant jotu ko jublu bu baax damaa bëgg tey damaa bëgg waxtaan waxtaan jot na yaa ngi dégg joxe aw ñam jublu ci cant bokku ci joxe ñam joxe ñam rek de ndax dees na joxe ñam jublu ci sarax te du tee nga dugg ci wax jooju ndax yàllaay tax in tubdoo sadaxaati fa nihim ma hiya wa in tuxfuuha wa tuutuuha alfuqara fa huwa xayrun lakum wa nukaffir ankum sayyi'aatikum wala ma taxamaluuna xabir dees na joxe aw ñamit jubli ci maye ko jox la ñam ngir may la ko loolu yi baax na dara tax nga dugg ci boobu waaye bokkut ak cant gi ba tey dees na joxe aw ñamit jubli ci rafetal mooy dangaa dëkkandoog dëkkandoo yi yekkal leen te rafetal it daa baax naka wa ahsinoo inna allaha yuhibbul wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ñaar yooyu tolloowut ak ki bernde di joxe ñam jublu ci sant yàlla tolloowut dabu ko ndax la in sakartum la asidannakum xam nga lu suñ tubaab foofu nee na wantawa taxañu na def wenn say suñ tubaab lu taxañu mu ne bala maa wax li taxañu damay wax fi mu taxañu dugg fii haatayni alkalimatayni ñaari baat yii di la in sàkkartum giiñ naa man yàlla ni su ngeen ma sante la asidannakum giiñ naa ne dinaa leen dolli Sëñ Tuubaa nee ñaari baati yàlla yooyu taxañu na lu taxañu mu ni alxuloomu xam-xam yi xam-xam yi bi yéeg bii wala mu ni kullahaa yëpp laa wax fii haatayni kalimatayni mboolem xeeti xam-xam yëpp yàlla dëxañ na ko ci biir ñaari baatam yooyu muy la in sàkkartum la asidannakum moo tax ak cant kenn xamul lu doon kon ki ki bernde jubli ki sant yàlla jëfëm Joji, ak bis bi li muy firi di wane ni jëf ji gën a rëy ci lislaam mooy joxe aw ñam ak baril ab nuyoo te ñaari ponk yëpp daje cant gi loolee li muy rëy rëy rëy rëy fekk si wut sax rëyaayu jublu ci nag sant yàlla kon kenn jëfut jëf ji toll ni jëf ji nuy jëf muy sax ci di sant suñu borom kenn mënu ko ndax amut yonente sallallahu wa sallam moom la yàlla yónni mu andi diine ji lu mu wax loola la ku toll ni rasulullahi sallallahu alayhi nag bu nee la li nga nekk gën Lamine Mbaye su nee la li nga nekk baaxul defe naa wóoru la naqari yaa ngi dégg léegi loolu loolu addis la waaye beneen bi mooy alquran boo demee ki suuratul qiyaama sunu borom ci aaya 16 diggante 6 7 8 9 10 11 12 جروم ناري آية يو خم ني دا شاي نتالي دولي جوخي أو نيام تيالة تخ نيم أبي دولي لب آية بانجي تامبوليتي يوفونا بالنصر ويقافون يوما كان سره مستطيرا ويتهمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نقاف من ربنا يوما حبوسا قمطريرا فوقيهم الله سر سالك اليوم ولقيهم ندرة وسرورا وجسيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها حل الرائك لا يرون فيها سمسا ولا سمهريرا ودانية عليهم تلالها وذللت قطوفها تصليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كحسا كان مزاجها سنجبيلا حينا فيها تسمي زلزبيلا ويطوب عليهم ولدان المخلدون إذا رأيت ما حسيتم لولو منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نهيما وملكا كبيرا هاليهم ثياب سندس قدر ويستبرق الوهول أساور من فدة وسقيهم ربهم سرابا تهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيكم مشكورا يو آية سيس بسيط yàllaa ngi ciy nettali benn saxaaba bu tuddi Seydina Aliyu ibnu Abi Taalibin defe naa ñëpp xam nañ ko mooy ñeenteelu xalifa bu lislaam Ababacar Omar Ousmane Aliyu Aliyu moom mi nga xam ne yonent ba toog ba yàgg mun ni man mii maay dëkkub xam-xam bu doon am porte nag Aliyu mii may buntu ba ana madinatul ulum wa Aliyun baabuha moom la Sëñ Tuubaa ni abul husayni wal hasan baabul hulumi wal xatan abu siraafi lan jumi kooku mooy Seydina Aliyu Aliyu moom yi ak a bari lu mu def ci lislaam waaye amu ci benn jëf ju tax alxuraan ñëw ni jëfam jooji jële na ci dem àjjana donte lu lu ne des na ko téléphone jot yàlla tudd ko laa wax alxuraan jëpp la muy bari bari aay yii la Musa wax ni Aliyu day am na àjjana dofis boole na ci it bis bañ gi dafa gis dara lu ko naqari te du moom dong moom ak famille am lëmb famille bépp lu ko indi nag lan la Seydina Aliyu ñaari doom amoon na ko muy Asan ak Useynu wa fihim jaalil wasan abul Huseyni wal Hasan Asan ak Useynu am ko ca tawat ñii nee nañ Asan la ndax Asan a mag ñii ne Useynu la waaye en am ko ca tawat tawat ji nag dem ba jaaxal ko mu def li ñu tuddee Nasir booba moom moo toog Seydatuna Fatima doomu yonent bi di soxnaam sa ak ki tawatut ak ki tawat tawat ji jaaxal na leen mu def nasiir nasiir mooy lan ci lislaam nga bëgg dara daane lii de maa ngi ñaan yàlla su ma ko defalee dinaa ko wooral nangami fan jaamoo ko ko wala nangam day su ma ko sëriñ bi defalee dinaa woote cant sante ko ko loolu saa yoo ko defee ñaar ya loola bu ñëwee def loola dalay war a far force loolu mooy nasiir ci lislaam ah mom la Abdul Mutalib defon dom jafé ko moni suma yalla maye fukki doom yu góor dinaa rey benn sante ko ko mo andi won dégg ngeen Abdoulaye ak ray gak nangam ak nangam tarikh bi ñuruma lolu moy nasib ci Islam, ak fiq la sayyidna Ali ne ci yalla bu delo ak wir sama dom Ji, kon day ma sante ko wor ñaari fan Fatimatu ne ko kon day sama sang bi ma dimbilee la ñaari fan woorale la ko mom moom nee na yu lay mandai ka tawatut ci ñaar ñoy ne ko man day bay ma dimbilee sama yaay ma nit ñaari fan jurum ben fan ngo yalla dégg wax ja d'accord rof ko wir mu wir lola di farata ci ñoom ñu war ko def ñu um nak seen koor ya premier suuf alcorane wax kon duma ci jaarat wax ay ba pare premier suuf nee na nu woor ba tok di jot alquran nee ben miskin taxaw ci buntu kër gi kuy miskin moy ko xamni amut lu ko doy bu amé añit amul reer bu amé reer dom dik. dal di yalwaan daal ni kër gi ñuy askane la rasulullah alaihi wasallam tay ji day sama ndogu ci ñom la ko yakkar al yu dafa mëna way dal di way fatimatu daal ne ko sun dee askan ci yonante bi ki sama buntu kër gi ya tax ndax ya mako gëna jégué Fatimatu fëgg loxo ya àll yi fëgg loxo ya seen ñaari doom yëpp fëgg loxo ñu jël añ ba jox ko kon ndoguwunu ñu naan ndox continuer xëdd naanaat ndox wooraat deuxième jour bi bi biñ jëlee deuxième jour bi ndax eh, de ngeen jéggal ma ku ne deux jours laa waxoon ci koor gi ngeen jéggal ma damaa juum ku ne ñetti fan nga nga def nasiir bi dégg nga ku ne trois jours kon neuf jours lay doon waaye nag trois rek lay doon ndax ku ne da ngay ñooy warandoo deuxième tour bi ñu jëlaat koor gi xëddee na ndox doge ko kon biñ demee ba dog jotaat alxuraan nee na ab yettiim ñëw mooy jirim jirim mooy koo xam ni ndeyam làqu na bu dee nit bu boolee ndey ak baayam làqu nag jirim piir la bu dee ci ñi nga xam ni ay mala lanu mooy ñu dul mala yi dul naaw ku ci ñàkk ku ci ñàkk bàyyi yaa di jirim bu dee picc yi naaw nag ku ci boole ñàkk ndeyak ak bàyyi yaa di jirim noonu la ko téere tërale jirim bi ñëw taxaw daal di waxaat lu mel ni la miskin ba waxoon àll yu waayaat wayu mel ni moom mayoon Fatima ñu defaat lan defoon jox añ ba euh, ndogu la kon deux jours ndogu wu nu xëdd ñu troisième jour bi ñu jëlaat koor gi troisième cour gi tour bi bi ñu jëlaatee koor gi alxuraan ne biñ tollee ca waxtu ndog wa wan tolloon keneen dikk waaye kooku nag asir la asir mooy kan ku téye prison jàpp ko daal ne ko nag xayma nañ sa mbir ba boo indee nangam ñu libéré la mooy yow daal nangam lan la laaj mu dem nag di lijjanti nangam jooju kooku lañ tuddee assir moo tax arab lu for la sëñ Tuubaa nee na assiru mahal labrari hiina assiru wasannal hida honaaka assiru yëg nga ni assiru gi mu ko tijjee ak assiru gi mu ko tëjee bokkul lu ni firi déedéet assiru mahal labrari première assiru gi ci sayru la jógee mooy maa ngi nii di dox ànd ak gaa yu baax yi ta waxtu wi may doxé Non bi mom ñoo nga ñortu né asiru ñoma japp jàpp gu mujj gi kun téye lay firi mooy asiiru gii may wax moy kun téye te tëjaguñ la moo tax gi tejj xasida gi dox la way asiru gi tejj bayit bi prisonnier la kun téyé motax arab garaw te ñoo bokk même araf ak même mot même masque da ngi dégg alcorane ñettelu ba ñettelu yoon bi asir mo ñew mooy kooku nu jàpp ba ne ko boo indee nangam ñu bàyyi la muy lijjanti loolu di ko wax lu mel ne la ñaar ñoo ña waxoon ñu joxati ko yëf ya ba fajar bi jot nag attanatuñ ko ñoom ñëpp xamandoo alxuraan nee na ma yebal jibril nag jox ko sept aay yi ma wax léegi douze yi diggante six ba douze muy six kon ko ñu dëkkee kër gi ñu wóor a ngi nii ñoo xam ne lu wax yàlla def ko ñu matal kóllëre ñu dëkkee kër gi ñoom day ragalul lu dul bis penc ak tiit tiit ya fay wax ndax bis penc lu raglu la ku toll ne yàlla daa bari doole lu mu raglul day day daglu xanaa xamoon suñ woonu dimbali ba waxe bisi penc ki bàmmeel boo ko doon wax fii da mel ne koy wax lu xew yi waaye mi ngi xew ba tey dañuy cee dimsal rek aka am du xew yi mukk yàlla doox luy dañ ndimbal lañu am ci boo ko fi wax comme ki wax lu xew yi ba yëg nga ne xew na ba léegi du xew yi mukk lu wax day am waaye noonu lañ ci musal yaa ngi dégg bis penc yooyu ak ya fay xew ñoom de waa kër gi ñu ko ragal lañ mooy kon yàlla seere na seenu ragal yàlla daan na ñoom de léeg-léeg aw ñam seen ñetti ndog yëpp joxe nañ ko ngir sama jëmm ji man yàlla laa nuridu minkum jasaan biñ koy joxe sàkk wuñ ci ak pay ndax bu fekkoon ñeen koy jox dañ leen di fay jaay lay nuru deful loolu wala shukura yàlla nee na sàkk wuñ sax ku leen sant moo tax ak cant boo ko dee def ki ngay berne mu ne la merci mu ne na ci prix nga yemale ndax moom taxul nga di ko def yàlla tax yaa ngi dégg sunu borom ni ñoom ñii nag bernde jii nu jëf tama tax te defe ko nii alxuraan yoo de jëlee nañ ci fa waqeehumu law sarra saalikal yawmi bis penceeg tartar yaag coow laag fitna yeni wax yëpp mucc nañ ci moom soxnaam ak ñaari doomam yëpp seen yoon nekku ca far mucc nañ ci benn ajjana mi nga xam ni moom la ñëpp bëgg wala xeehum nadratan wa surura nanu xam ni wa jaseehum bi maa sabara jannata baharira wa laqeehum nadratan wa surora ñoom seeni xarkanam yowmal xiyaam bokk nañ ci xarkanam yi naat xam nga ñooy ñooy ñan ñi yàlla yi baaxee ñu gis jëmmam ji kanam ya bokkut de kanam ya ñëgg alxuraan dane wujjoohun yowma isin baasiratun yooyu tasunnu an yufala biha faaxiratun waaye wa wujjoohun yowma isin naadiratun nadratan naadiratun nadratan mooy masdar mi kenn consigé ko ko naadiratun ismu faahil la mooy consigé nañ ko def ko siise ben rab bi la wa wujjooxoon yow may si naadiratu ñoña nak ila rabbiha nasiratu ñoy xol seen borom jàkkaaroog moom ca la ñuy béggee sax mbik mom nga xamni moy waral bu ñu dugg aljana dañuy fecc ba yi nga ni kuy dugg aljana da ngay fecc xam nga la koy tek mbik ma ngay am ca ba nga gisee yalla mbik moom mooy tax do and tek sax saako ngay dugkat di dugg danañ dugg aljana bir bu yàgg duñu yëg neexitu aljana waaw parce que neexitu gis yalla génn dul bayyi neexitu gis yalla gi moo tax ñay dëkk na bu ñu demee ba neexit yu tàmbalee miis bu ñu yëgee nii lanu jotoon a mos ba taxul ñu yëg neexit wii am na ñu dëkkee loolu dana leen ñee ñee gu raw ni waa sawara ñee waa àjjana loolu indi ñee kenn daa mën a ñee kenn ci loo xamul ah, loo loo xamul bëggoo ko ku ko am loo ko ci ñee li ngay ñee nit danga nga cay mos dara te xam ne wuu kii lim am maa ko ko ñee ndax dangaa xam dara ca loola mooy indi ñeete bala ngaa ñee kenn ci dara da ngay xam dara ca lam yor mus gan mus ci xool yàlla tuuti ba yëg neexit ba moo andi buñ giifee di ñee ña fa dëkk nag loolu ko indi sëy naa lii moom alxuraan ne bokk na ca ñooña mu ne ñoom ñi yooyu yëpp mu ko defal nag daal di tàmbali tàgg àjjana ak nam mel ak neexit ak nangam nangam ma ngi ko jëlee rek ci bernde yooyu mu defoon moom ak njabootam ji kon kenn jëful ci islam lu ëpp doole cant gii nuy def amut kon ku ci nekk ku ne na xam ni yow la yàlla baaxee nga sax ci loo xam ni boo ci am nga ndimbalul bul amati sikk sàkk bul amati defi Sëriñ Tuubaa dani ci nuuru dari ni habliya may ma yow yàlla dawaamu sukkuri ma sax ci cant lil jinaan yi ba àjjana daani ak cant nag mooy jënn jëf joo xam ni daa boole jëfi sareexa ak jëfi aqiiqa xanaa xamoon jëf jënn jëf ju la mayandoo saree ak aqiiqa amul ci jenn jëf ci lislaam ju dul ak cant déedéet jëf jënn jëf amandoo ci jëfi saree ak jëfi aqiiqa ak cant dong ko mën moo tax sëñ bi bir ruuhi ndax ah, aqiiqa mbirum ruu la ak xol sariha nag mbirum yaram rek la muy saahir si sin bi ne bir ruuxi ci ruu gi ak cant ruu da koy def wal jasadi ak yaram wi muy lii feeñ waaye wal jënaani ak xol bi ñett yëpp lay dajale mu sax ci waaw déggoo lim ci bi xëy di sakkin boo ko amee bul sikk sàkkati ci lu dul benn sikk sàkk bul sikk sàkkati raw nga wa bi xayri tuhami ak ci lu dul defee defee moo njot rafetal njot amal kóolute ne yow la nga nekk rek kay mbir ma واصرف لخير يا جالبات التهمي من يالله بوما جوخي دوا مسكري دقل منك لب لي ورا التومة بوقسي أم دوا مسكري تي يالله خمال ني ست نجي تومة كي سابرم ست تومة كي سابرم نك دوينة كي كنين لول دم خدون أبي مي أغلا بيري تي كانت جي نوي دف نغن كو فنكو نين نيكي بوكو تي يالله باخي نكو نو نكتي واي مودل أغلا بيري نكي كو خمد بان خمني جفي سلو تولني أكتن تي كو سوف أمد تلي نك الإسلام لا لما وحني أدس لا القرآن لا joxe naa numéro yi joxe naa téere yi wax naa fam ne ñu ñëw ci thème kon jërëjëf ci kay léegi kon ma ñëw ci thème bi waxoon naa leen ni thème bi ma bëgg waxtaane mooy yëfi Serigne Saliou yi nga xam ne da ko feeñat jamono mu doon nag lu yees loo xam ni yeesaay bi ak rëyaay bi jur na ci nit ñi ñetti kuréel defe naa déggoon ngeen li ma wax yeesaay bi ak rëyaay bi genn kuréel gi li mu leen jural mooy luum amul luñ ko peesee ndax luñ ko peesee yëf yi ëpp ko amul luñ ko nuroo leel ndax luñ ko nuree leel du ko nuru mujj gi nag ñu téye seen gémmé rek xam ni li ñuy tudde waaru waaye teewu nu am taw féexi xam ni ki ko def daal lu mu def defu na mooy Serigne Saliou nu far na méeg beneen bi moom rëyaay bi lool ba kawe seenum xel ak yeesaay bi lool ba rëcc seeni bët daa jur ak weddi ba sax faf nañ ko jàppe lu mu sos ba luñu wara daali bayyi la ñeneen ñi nak moy ñi nga xamne dañu am tawfiq yi bok ci diko dund mom diko ko ta moy nun loli nak ngir waxtane ko damay ñëk laal tuuti ci conclusion bi tuuti wat ko fa nak dem introduire def développement deux parties ñëwaat ci conclusion bi ndax moy tax mu leer lu tax ma ko njëkkalaat tuuti ci conclusion bi mooy conclusion bi mooy ngir nu xam ni mbirum Serigne Touba la mbirum Serigne Touba nag mbirum yàlla mbirum yàlla nag moo nii doxe waaye mbirum yàlla daa ëpp xelum nit xel mënu ko jàpp Serigne Touba nee na xel ni ko yàlla fonke ba tax bu wàccee ay aay yu bari sax danaan borom xel yi laa ciy waxal innama yatasakkaru ulul albaabi ak yaa ulul albaabi kon yàlla fonk na xel waaye nee na xel ni ko yàlla fonke de ak ñu ko terale tax na law lam yakunil xaqlu bu fekkutoon ni xel min maxluqaatihi daa bokk ci mbindeef yi yàlla sàkk fi ne xel li muy tedd tedd ka baax yàlla ko sàkk mbindeef la suñ tubaa ne ay xel ni ko yàlla fonke bu fekkutoon ni xel min maxluqaati yi daa bokk ci li yàlla sàkk sellaay beeg ni ko yàlla fonk de kon dana tax la adrakahoo dana jot mbirum yàlla wasaafahoo dana mën a leeral mbirum yàlla bu du woon ak mbindeef mi mu doon ni ko yàlla fonkeeg lim naan yéen borom xel yi kon day dana jur xel mën a jot mbirum yàlla kon dana jur xel mën a leeral mbirum yàlla walakin hoo waaye moom xel ala fa listidraag la dabaatal waaye moom xel ñu ne ko ah mu ni maxluuqun lun sàkk la te allahu yàlla mi ko sàkk dani al walakinahu waaye moom xel maxluuqun lun sàkk la benn walam yasal maxluuqan mësta dañ di doon lu lun sàkk wala yasaalu maxluuqan te du dañ faw di doon lun sàkk mbindéef la te du màgg mukk du ñaw mukk du ñor mukk du sew mukk du mën a xereñ mukk ba yegg ci weesu mbindéef wala yesalu maxluqan daan ne te allahu yàlla mi ko sàkk moom rabbun mooy buur walam yesal rabban te mësta dañ di buur wala yesaalu rabban te du dañ faw moom di buur te lépp lu dul yàlla ne ab jaam la te wal habdu ab jaam lam yesal habdan mësta deñ di doon ab jaam wala yesaalu habdan te du doon faw it du dañ faw it di doon ab jaam mun su xulixa ban ko sàkkee rek daan ne xel mënta jot mbirum yàlla ndax day mbindeef te mbindeef lott na ci jot yi fi yàlla ya lott na ci leeral yi fi yàlla ya daan ne looloo tax xel mënta jot yi fi yàlla kon yàllaa nga ci ginnaaw naa Sëriñ Tuubaa daa di sama mbirit noonu yi la demee waaw waaw lu ma la wax tey damay wax ko Sëriñ Tuubaa bind ndax wedd gi daa bari yaa ngi dégg sama mbirit noonu la demee xel du ko jot suñ tubaay wax najani al halim wal khabir bima wana handarkihi tadbiiru naajaaniya diin tan ak man yegu ya wona ak man defan tan ak man koku kana mu al halim yalla mi borom xam gi ta xamam gi fenn wal khabir tay ki dañ kumpa ki nga xamni na ci kumpa amul kumpa xamna lip yalla momi tenangman ak man ay yoy bima wana lottu na handar ki ni ca jot yoya ak tadbiru xel ma dak setantal lottu na ci jot ko xamé nga tadbiiru xàqulu rek tadbir moy xel ni yalla fut ba mu sel ba mën setantal alquran ba man ca genni ay makhna yo xamni ni rek taxul nga man ko xam tolu wuta a yi rek de alxuraan déggoo mu ni am hala qulubin aqfaaluha fof nga wax ni moy yéen lu len Al settantal alquran am yalla kess ke seeni xol kon ci degge ni yalla kess kaske seeni xol duñ mana def tadabbur kon ni yalla ubbi seeni xol ñoy mana def tadabbur motam ni fahtabiru ya uli nafsiri da am lu ñu tudde mafhumul kalam ci arab li ngay degge ci bir wax bu yalla ne lu tax mënu leena alquran am kess ke seeni xol lo ci degge kon kun ke xol ba bu jéemoon a góorgóorlu ki settantalit du ko man kon kam ubbi xol ba moko man kon kun tas ko xol ba du ko man loo ciy dégg kon kan ko ubbee koy man kon kan ubbi am xelam bokkut ak yor xel rek te ubbi woon xolam de du benn de moo tax mu ni fax tabiru réfléchir leen waaye nag du yéen ñëpp ko man yaa awli la bu séer yi yéen ñi ma ubbi seen xol may leen intelligence mën a réfléchir ñaari bokkul la sëñ Tuubaa ne dana ñooñu yàlla beree noonu ba seen xel ma a ñawee noonu laa wax sama yëf yii seeni xel lottu na càgg ca mooy tadd bii ناجاني العليم والخبير بما وانا عندركه تدبير أنت سبيلي والأنيس لي قط فائق المقيس بقدمة الماهر الرئيس مكيسي بالملهم إما يالا جوخ دي تاج القرآن بياك منك أنت يو سبيلي يا سما ويون والأني تي سما ويتل واي لي خطه wammatal nga ma ay yëf yooyu faa iqal maqiis xeex jotu ko dangay ngay teel a noppalu ci xam ni du lu xel di lijjanti ba pare waa ngi dégg lu ko waral dinaa ci ñëw ndax Serigne Touba nit ñi li mu andi kon xel mënu ko jot benn waaye amul lu mu nuróol ci li nga xamoon ndax daa boole indi ñett moo duggee ci développement bi danga ko xam Serigne Touba moo moom yi nga xamoon comme alalama nak dana ko sam di ñongal di ci bind di ci wax bo sukkandiko ca lola gis mbind ma gis wax ja ak ñongal ga da nga nan lii seigne touba ta waxe seigne touba yi ngay wax ta boba day wér waaye loolaay seigne touba waye lola rek du sëñ kon da mom lolu ben muy li nga xamni ne na xamee son nako moko mom ko yalla da ko jox mu ñongal ko mom ko tag ko bind ko waye taxawu ja lolu bind nako wax ni jamhal la bayna al xiyaari karaman wala tafruxa li fi musa jaar lépp yàlla dajale na ko mayandoo ma ko faf naa ko sax denc ci xasaayid yi ku jàng am lij max jamihama tafaraxa lada min al xayri wa saffil xalada waaye benn boobu mooy groupe bu njëkk bi waaye da cee boole moomaale ya nga xam ni xamoon nan ko waaye kenn mus ko am waaye am nañu ko xamoon nag ba bëgg ko waaye xam nga ak bëgg nga taxutoon nu am ko yooyu nee na moomaale na ko moom loolu mooy waqutta lii maa waddahu sawat tuqaa ak waxaada lii maa waddahu labraaru moy sopon nan ko beggon nan ko way amunu ko mako mom moom man ñaka may comprendre ngi deg te nee na loola ña ko jotoon a baksin ba bëgg ko dat nañ coono bu ne ngir am ko waaye seen coono baak seen kër kër ja mënu liñ ci wona yeggale yàlla na ma may loolu yit moko bind moko bind farru bi kaddin anta fardun barru la xutta ilayya xutta womman nga yow yalla ilayya indi ci man ma ilayhi al xurru la nga xamne sang dañu daw di ko ji tafarro ña ngay daw ca sàkku ga bi kaddin ànd ak coona munu mënuñu am anta yow yalla mi nga xam fardun yaa wéet baradu tey ku bax kay faf nga mako jox muy deux groupe waye nak neena ñaar yoy yeb bu ngeen ma sété taxul ngeen gis ma donte mbiram la kat bima rawé ba nga xam bu naan awma morom fofa tax ni wax ndax lola do dégg kuma ca nurul dara moy nak bi nga xamni kenn musuko xam ba diko bëgg waxuma la ak am nak mom mësta xew ci àdduna sëñ tubaa nee na fustu bi maa xaaba xanil aqraani xasamanillahu min al xusraani dama raw naa gañe ci lan mooy làq lool ump na bépp xarnu bi fu mos jaar aqraan xam nga mooy lan priluyeeru xarnu xam nga luy xarnu cent ans yu ne par cent ans boo ko defee priluyeer mooy doon aqraan sëñ Tuubaa nee na xarnu yi fi jaar yëpp yor naa ay yëf yooyu xarnu yooyu yëpp benn mosu ko cee xam bi maa xaaba xanil aqraani nee na akramani hinda sawil idlaali waxaada lii maa xaaba xan misaali teral nga ma yow yàlla fa tubaab ya mooy foo way réer ña mooy ci géej gi lay wax foofee nag nga ma wommatale yow yàlla sama yëf yooyu lu ko misaal amut misaal misaal lu mën a misaal loolu amut ci àddina fi ne lu naan lii lu koy nuróoleeg yooyu kon yees na kon yeesaay bi kon yëfi Sëñ Tuubaa la yaa ngi dégg lu tax ma ne damay laal tur ci conclusion bi mooy pour wane ni li muy yees yees ak rëy rëy rëy rëy bu mu jaaxal kenn ba nga génne ko ci yëfi Sëñ Tuubaa lool loolu nag daal laajoon ma leeral tuuti ci wane ni yëfi Sëñ Tuubaa ci mbindum Sëñ Tuubaa yaa ngi فزت بما خاب عن الرجال كما هديتني بلا إدلال لقنا أي فيوي مولم غوريب غوري في موسى جاريب أمو تي كن كو موسى خام لول سا وخوما لك ديكو أم loo xam ne nag gaañe ci jëm boppam la njëkk ñu njëkk a yéem na xamuñu ko woon moo ñii moom bu leen yéemul ni nooy def mën ta ñàkk di waa ngi dégg léegi nag kon loolu tuuti la ci conclusion bi léegi nag ñu introduire mooy dangay xam ni yëfi yàlla la luy yëfi yàlla nag wàccu mbirum yàlla ci kaw suuf xam nga ñi gag ñëpp lu leen gagloo jàpp lii ma la bëgg a wax mooy ñaari xàmmewuñ ko mooy wàccug mbirum yàlla ak wàccug diine yàlla ñaari bokkut a la religion ak la wàccu mbirum yàlla ci kàttanam ngeeg man-manam gi donte sax du nu dàqalikoo ndax ki yor mbirum yàlla mi mooy feeñal diine yàlla ji waaye nag ñaari étape yu bokkut la boo jàppee diine yàlla ji muy mbirum yàlla mi da ngay gag ndax première bi muy diine yàlla ji luy mat la te bu xasee mat kenn sañu di cee yokk benn araf loo ci yokk biddaa la boo boo ci continuer dan lay rey ci lislaam ke bu xasee mat kenn sañu te wàññi benn araf loo ci wàññi biddaa la boo ci continuer dan lay rey ci lislaam boobu day mat day tëj waye nak waccu mbirum yalla non du mat mukk sa suné ne gëna bari doolé bo leen xamé wu rek bi day mat motax tax bu xasee ba ni mat na dina ñëw ci loolu lo gisatu ñu dal ko ci sengel ni ah ñu ko ci doole nan wax ak ñoom waaye nag bii du mat mukk sa su nek di gëna bari doole bo leen xàmmee wër problème ngok na la wax tay li andi problème bi yépp wax la solution لي ما لا يوحي القرآن قصة خل سورة المائدة آية 6 17 لا يدمع جوخي نمور آية يجري القرآن وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع ردوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باسمه ويهديهم الى صراط المستقيم xanaa ah, loolu ngeen di wax naan ay wax day jeex yaa ngi dégg yàlla dani diggal na leen jóge ci yàlla ñaar ban ak ban yàlla mu ni nuurun leeru ko yàlla gi spiritualité wa kitaabun ak téere bi yàlla bi religion téere bi téere bee jàngale nin koy jaamoo li mu bëgg ni ko bëggee li tere ak li mu digle bii nag mooy wane kattanu gi sañ-sañam bi dooleem ñaari bokkul la ñaari taxawaay la ki yor kattan gi nag ak man-man bi sañ-sañ bi moom moo ni di diine ji li tax nga xam ne diine ji rek doyut fi ne boo appliqué woon nim la ci diine ji ko nim la ko waxee ba mu mat nga boole ci wedd ko moom waa ko andi yéefar nga ah comme kay diine ji doy na yaa ngi koy ko andee wedd gi lu mu la defee yéefar ci nga xam doole ji nekkul ci diine ji ci moo tax alxuraan ni yëx di maa ngi gindee bihi ci waa ji foofu ñi jàng jàngkat yu mag yi ñoo may diglu daa leen posé foofu benn question alxuraan ñaar la tudd nóorun wa kitaabun leer gi téere bi daan ne yëx di day gindi moom yàlla ba pare na bihi def ko jenn damir tas niye lisim ci atte grammaire boo xasee wax lisim sañoo def benn damir yëx di bihi maa nga war a wax dana leen gindi ci ñoom ñaar muy téere bi ak leer gi waaye lu tax mu ne na téere bi ak leer gi ba noppi dana leen gindi ci moom leer gi ci moom moom gi fu mu dellu kon gindi ki gi mi ngi ci waaj topp waaj ndax lim la andil topp gi dula la jëriñ mukk fii ànd ko jàpp ko moom xam nga noo koy xamee yaa yoo si naa mënoo yéen ñi gëm ba noppi ko mooy ñi d'accord ne yàlla yàlla ragal leen yàlla xam nga li ragal yàlla awamiri wa jitinaa bi am jom ju toll ni lu mu la digal nga def lu mu la tere nga ba xam nga loolu wax dëgg yàlla sori na yéen ñi boole loolu la ni wabtaqu ilayhi alwasila dem leen ngeen jëbbul ji ci wàcc ngi dégg te bu ngeen yeggee wa jaahidu fi sabilihi seen kër-kër gi amatu solo bëgg-bëggam gi mo leen di rawale jihaad leen ca yoonam wa la halakum tuflihun lool rek ka mën tax ngeen sore de nga sumbura ni mi tax léegi waxna ben benn aaya ci bu dëggal ñaari wacc wàcc te bokkul te wacc ci même lieu nga dem ci suuratu talaaq bala ngaa dugg taxriim ñaari aay yi ko tëj suñu borom di di waanee foofu wàccu mbiram mi ak ni mu ko nare alquran dani allahu lasi xalaqa sabxa samawaatin wa min al ardi mislahunna yatanazzalu lamru baynahunna li taxlamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna laa qad ahaata bi kulli shay'in hilman foofu la leerale wàccug mbirum yàlla mi lan mooy jublu gi ak wàccug diine yàlla gi lan mooy jublu gi fii dani allahu jëmmi yàlla jëm boppam allahu mooy yàlla boppam la wax mooy ki sàkk asamaan yeeg suuf li ci diggante bi boo ko boolee mooy àddina diggante asamaan ak suuf suñ tubaa lañ laaj luy mulkoog koo kookoo xam mbir yi suñ tubaa ni al mulku maa bayna samaa i dunia ila tahti sara wal malakootu ma maa bayna samaa i dunia illa al xarsil xasim kookoo xam moom daani malakut dal mo tamale asmani adina ba ci aresi yalla ja fa ko so mulku nak na ngeen ko japp digeenti asmani adina sii nga xamne mo nu gëna jégué ba ci juroom ñaareelu suuf digeenti bobu la yalla fi lay wacc sama mbir man allahu mbirum allahu la nak du leer de allahu jëm bopam al amru mbirum mbir mi da delu ci allahu mooy wàcce mbirum ci kaw suuf kaw suuf si afa mam adama di fi ñew yalla di déclarer dana wacc mbirum ngir xamal ko nit ci lim ci xam tok nañ juroom ñaari at juroom ñaari junniyi at yu tek juroom ñaari téeméeri at yu tek juroom ñaar fukki at yu tek juroom ñaari at yo xamni ne kenn dëkkewu ko daa vidd so sept mille waaw sept mille sept cent soixante dix sept ans yoo xam kenn ko ndax ñu fi yalla indi rek ñu def ay yef mu jëlé leen fi mu viddel ko nonu di organiser doo ko bind aadama boo gisee malaaka yi am sañ-sañ bu tolli naan yàlla da nga faa a tee yóbbu koy tuur daree a rey malaaka yi xamul leen xamal lool daa am ñu fi jiitoon doon def loolu loolu leen yóbbu ci mën a xam loolu li yaa ngi boo demee ci xaraa isul majalis fii qisasi lanbiya téere la buy jàngale histoire yonente yi lii ma lay wax ma nga ca ci trois boo demee ci trois cent dix-sept xaaj ba danga ko sa fekk di joxe téere yi tey day war yaa yaa ngi dégg maam Adama yàlla ni day wàcc mbiram mi xam nga lu mu wax ne moo jublu wàccug mbiram mi moom yàlla ak luy jublu wàccug téere bi mu ni bu dee wàccug mbiram mi li tax la muu la wax laa muk taxlil la dama cee jublu xamal yàlla ci li ma soob ci kem liñ ci mën a xam kon nekk yàlla di su xam mooy xamale ku ko neex ne moom rek yàlla mooy borom kàttan gi mooy ki xam lépp loola da caa jublu le mbirum yàlla foofu la ñuy xamee yëfi yàlla bii nag neen dama cee jublu jàngal leen ni ngeen ma mën a jaamoo mën a jóge ci lëndëm dem ci leer alif laam ree kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuuri bi isni rabbihimoo ila siraatil xasiisil xamid ñaari ñoo ngi sax bokkul mission yu ni dox bu njëkk bi dama ko sori dama koy tëj te ñëw ci bii bii ni ma koy tëjee mooy alxuraan mooy téere bi yàlla doon jàngalee diine ji ndax benn téere la boo xam ne yónnante bu fi ñëw bu ne am nga jukki boo ci indi Sëñ Tuubaa na ko téeméeri téere fi wàcc ak ñeenti téere nee na téeméeri téere ñett yépp mi ngi ci biir benn bi benn téere dong la war mooy alxuraan alxuraan moom yi nag daa wàcc ndoowut day def buy ñëw rek ñu andil la ci ab jukki jox la nga atte ca lu toll ni la sa la mën sa jamono boo jeexalee ñu andi ko roofaat ca kaami ba jukki jukki bu ko ëppaat booleeg la nga yoroon ak lu mu sawaat jox keneen mu ñëw benn kaamil boobu dong nga wàcc benn nubuwa dong nga ko doon wàcc yi mooy nubuwat rasulullahi sallallahu alayhi wasallam benn yonent moo wàcc ci kaw suuf yonent boobu yi nag da doon séddale boppam ni mu ko soobee yàlla day tibb ca yónnent ba xool kenn roof ci moom lu toll ni waa jamono mu dem doxal bu yeggalee ñu jël la woon ca moom jël lu ko ëpp dolli ñaar yooyu roof ca kaneen kooka doxal kon benn yónnent wàcc ki donte 313 la waaye benn téere wàcc donte téeméeri téere ak ñeent la muy 104 loolu it alxuraan a ko leeral soo suuratu Hadiid ci benn aaye dafa wax ni wa laqad arsalnaa nuuhan wa ibrahima wa jaxalnaa fi suriyatihima nubuwata wal kitaaba nubuwata wal kitaaba yàlla dana yónnente yépp maa leen yebal jox leen genn nubuwa ata waxut nubuwaat de singulier la ko def nubuwata genn nubuwa kon dañ ko doon séddoo kon ku ne la nga ci mën a indi wal ak benn téere waxul kutub al mooy jamp bi al kitaab benn téere benn téere boobu ak benn nubuwa boobu moo doon wàcc benn téere boobu alxuraan la benn nubuwa boobu rasulullahi la fa minhum muhtadin وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثيرهم برسلنا وقفينا به سمن مريم وآتيناه الإنجيل وجهلنا في قلوب الذين اتبعوه رهفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى ابتقاء رضوان الله فما رهوها حق رهايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا الله na histoire yonent yépp ci aaya boobu wàcc googu nag luy mat la daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem téere bi day mat diine ji day mat moo tax diine ji mësta am tur ndax matutu ton dañ ko daan tuddee turu yónnante bi ko andi wala tur ñi ngi ko yónni doo dégg ñu naan diine yahudi yahudi aw xeet la waa kër Muusaa la di diine nasaraan nasaraan aw xeet la di waxaalatil yahudu laysati nasaara ala shay waxaalatil nasaara laysati yahudu ala shay yaa ngi dégg wala boog ñu jël turu yónnante bi tudde ko diine ji moo tudd Jésus Christ ñu naan christianisme kon diine ji amul tur turam lañ ko dàkkantale diine ibrahima xam nuñ ko woyé ibrahima yu kon turu ibrahima lañ jox diine ji lotu ñu ni lotu yu kon turu lotu lañ jox lañ jox diine ji ya ngi dégg kon lu tax mooy jëmm ji wacc la te amagut matagut kon kuma matut do am tur mas nga dégg kuy juddu genn tank rek nga ne tudena musa ah ngay bayyi ba lepp genn nga japp bisub tudd do ko tuddee yaa ngi dégg loolu la motax tax bi mu matee ba mat ci lay dogu am tur yalla ni al yawma bésub tey akmaltu matal nan lakkum ñeel leen matalal nan leen diinakum seen diine ji nag mat na kon foofu day mat wa atmamtu aleykum nihmati xéewal gi mat na ci yéen léegi nag wa raditu lakkumu lislaama diinan jot na ma jox ko tur lislaam la tudd daan ne inna diina ndaka jëmmi diine hindallaahi fa yàlla al islaamu mooy lislaam kon loola day mat tëj na jeex na moo tax fi mu toll nii waxtu yi ni julti soir ñëpp xam nañ wax ci takusan ñep xam nañ ko añ màkk xam nañ at yi koy def ak wër wa wër koor xam nañ wër wi ngi koy def fim mu toll nii bëgg bëgg bëgg wor wër koor bu jalle nga dem wor wenen wor wu du koor waxuma la ñak am koor way duma yalla nga ci jëlé tisbaar juróomi rakkaa la ñeenti sawar bu lako ko def juroom duma yalla nga ci jëlé ba yek nga ni tayé lé ba def ko ñett yi jëlé ci duma yalla koor limi bax bax bo woré 30 trente ba wéri feñ nga ni man kat mana wor la def bo la ci wor bi su koor ci bakkar nga ci jëlé kon lolu mat na kenn du ci yok kenn du ci wàññi boobu day mat ñu bari nag foofu lañ juumee xam nga bi dul mat lañ xamul foofa problème bi mooy wàcc mbirum yàlla mi boobu du tëj mukk ndax na bay lamru na la wax dama koy wàcce saa su ne ak wàcc te du wàccandoo te fii ba faw lay doon ndax amul fu mu saa su ne nag lu ci mujj a wàcc moo ëpp doole la wàccoon te lu mujj ñëw dana mëdd lu njëkk la ba boo xamul sax da nga ne ah lii nag doona tuddi fi yàlla ndax la ma xamoon du lii ndekete dëgg la la nga xamoon du lii waaye lii ca la nga la indi lii moo fi indi lii doole ma ëpp lool yi xàmmee nga nasa la ak ënsa la ah tey jàngkat lay waxal de inna ansalnaahu alxuraan ak diine wàccut dan koo wàcce wàcce wàccoo ci sa dooree bokk daa am ku lay wàcce ma ngi dégg mooy tax nga mën a wàcce moo tax yàlla ne inna anzalnaahu wàcce nañ ko moom alxuraan kon daa am ku ko wàcce fii leelatul xadri wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nasala ñoo ko wàcce ci dëgg mu wàcc nag ci dëgg xam nga loolu wàcc mu wàcc wàccu mbirum yàlla mi nag waxut ne moom yàlla da koy wàcce dani mooy wàcc luy wàcc ak lu nu wàcc xam ne nga ñaar yooyu comprendre li ñuy wàcce moom day mat lii wàcc nag yàlla doolay boppam ji moo koy wàcce yàlla nag lu toll ne yàlla kan moo am doolay di ko wàcce yàllaay wàcceel boppam di wàcc par étape bii moo tax yetta nasalu la wax day wàcc bii mu ni ansala dañ koy wàcce lu ñuy wàcce ak luy wàcc fi ne sax nit ñi xàmmewu moo tax bii fadlullahi ak ixtisaas yi la ko tudde wa anna al fadla bi yadillahi yuutihi man saa mayam ji moom yàlla waajooju moo yor may yi waaye ixtisaasu sañ-sañu yàlla ge kattanam gi ci koo kii lay feeñ mooy ki ki ki jëmmal yàlla moo tax ma ne wallaahu yaxtasu bi rahmati may yasaau bokkut ak atee amrullaahi ami day dikk amru allaahi yëf yi nag la la la la la la lay wax du ay nuuroog di déedéet du ak leer gun jël allahu jëmmi boppam moo ni mooy wàcce mbirum boppam atee amrullaahi waaye nag falaa tastahjiloohu bu leen ko yàkkamti yàlla wax bi ki nan bu len ko yàkkamti xam nga ni yàkkamtiwul li limi def par étape la ko nara def di subhanahu wa taala hamma yusrikun kami xam ngeen uuma terbuka morom te bokuma kenn do sama yef yoy yi lay wàcce kon du leeru kenn ya-, yëfi yàlla lay wàcc yunasul malaikata bi min amrihi damir joji ci allahu la def an antiru annahu la ilaha illa anna fattaqul li ci jublu moy wan len sama bok kon waccam gi da ci jublu wannu bopam kattanam gi wàcceeg lee da cee jublu wan na nun koy jaamoo ñaar yu bokkul la bee day mat bii nag du tëju mukk du mat jamono ju nekk doole ji day gën a bari looloo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wàccee te wàccam nga expliqué naa la ne li ko jiitu lépp ca biir wàccam nga la moo tax mëdd na leen mëdd goo xam ni ñépp a nga ca biiram xàmmee nga diggante gën ak ëpp ñaar yu la fimne yonent bi mo annoncer Serigne Touba rasulilah waxul ne diina ji man comme diina ji man na mo nan amna kuy ñew yalla mako dig dat bi sax joxna mako ma ko nee ma bu ma bu ma at ak ñetti téeméer jëm ci ñen téeméer ba ko ki di feeñaat ci jamono neena ku fekke jamono rek muccu nga lutax tax lu fi def comme diina matna mission bi wàccu yàlla moo matul waaye diine dina na koku nak bu dikke mo yirif diine motax faawu day ñongal diine yeesal ko garde ko mu yëfi bopam dana cay wax di ca bind bo xamut nak dang koy yamale ay waxam ca lola rek ndekete lola moma waaye yow da nga taxaw loola dong moomu ko moomaale na la mo moo deg nga dégg suñu tubaa naan sarihatal mutahhara mumallikan haqiqatal munawwara ma mom sariha mom haqiqa momale lu ngeen xamutoon lu ken mësta xam na haqiqa sax gaa xamone nan ko suñ tubaa dama ci bolé andale lo xamni ken musuko xam moo tax yëfi sëñ tubaa léeg nga dégg ko jum jum te lu rëy naan yoonu sëñ tubaa bi dañ koo sos ci yoonu tasawuf erreur gën te rëy loolu yoonu sëriñ tubaa bi tasawuf mënu ko atte te dina gën a leer ci waxtaan wi moo tiim tasawuf sëriñ Saaliw nee na tasawuf jotut sëriñ tubaa nit ñi nante yi yaa ngi dégg wàccu gi fi yàlla yi kon xàmmee nga ko kon léegi yaa ngi koy dégg ak ak wàccu diine muy religion beeg spiritualité bokkut looloo waral sëñ Tuubaa li mu andi ci yàlla mëdd na foofu lu yonent bi feeñaloon maa ngi lay bëgg a wax lu sew loo xam ni ñi tiit sax ñu ngi xam ne sarixatig leen dañ naan ah ñii de ni ñuy waxe danoo mel ni ku teg sëñ Tuubaa ci kaw yonent bi day am problème ci nit ñi foofu nag ñàkk xàmmee lu gën ak lu ëpp la xam nga gën ak ëpp noo koy xamee vingt dollars ak cent dollars boobu cent dollars lim man ndax vingt dollars man na ko mënu ko waaye yëg nga ni cent dollars gënul vingt dollars da ko ëpp waaye gënu ko gën xam nga ci lu muy amee mooy ñaari matières yi bokkul nga am xaalis ma am wurus maa la gën le ndax wurus laa am nga am xaalis arab bu boobaa xayrun la koy wax dama naan la xayrun minka maa la gën le waaye bu fekkee xaalis nga am ma am xaalis même xaalis la da nga cee yor cent ma yor vingt bu boobaa doo wax gën ëpp le ngay wax afdalu minka maa la ëpp le yaa ngi dégg parce que yow li nga li nga yor ak li ma yor même nature la waaye yow li nga ci yor lim man li ma ci mënu ko mbirum Sëñ Tuubaa yonent bi noonu la mel même nature la mooy yëfi yàlla yee wàcc waaye li Sëñ Tuubaa andi boo ko doon misaal day mel ni loolu boo jëlee wan dugg na ci biir saa ay yoon yoon yoon da koy mëdd ba dootoo ko gis boo yeewu da nga naan moo ko ëpp doole moo ko gën fekk da koo ëpp waaye bu ko tuddee gën tuddee ko lu mu ëpp ndax lim ci feeñal ëpp na foofu la mu feeñoon da la gàggag bii ne mooy ëpp gis nga motax nga deg ma nan mu di ma jox lim yor di ma jox di ma jox ba jeexal lutax moy mom lim andi won man na koo ca ba mu jeex tàkk te ki du yeng mom wan ta jeex ay yoon yoon ci sax